Malick tey pare na pour pour pour jox pour tàllal loxo la de guerre wala ndax pare na tey pour tàllal loxo ku mel ni Balla Gaye 2. waaw loolu kay ñooñu kay man maa leen di ñaan pour ñu ñëw ñoom may taal ñoom loxo ñoom ñoo nekk si kaw man maa nekk suuf ku nekk si suuf moom moom la ñuy tàllal loxo mu yëg mais ku nekk si kaw moom mënul a loxo. est-ce que est dañoo jàpp ni Malick dafa denc dafa daas fanaanal ba gars yi ragal ko est-ce que doo wàññi tuuti loxo yi wala dara. non non loolu moom ñoom mën naa am ma denc bëre gu ma ko ma bëgg kaa bëre balaa may balaa may pare. Malick Niang Boy Niang xel war na cee dem. waaw ah, kooku moom <laughs> loolu moom waaw kooku moom abragal la kooku moom kooku moom xelam bëriwul xalaatul ma bëre man. lu tax xalaatul rek juróom-ñaari xelam xalaatul. Eh, tey Malick bu tàllee loxo Balla Gaye war na. waaw a loolu moom war na Balla Gaye gënee la Balla Gaye boo ko génnee si lamb yi mbër am fit si lamb lamb jeex. Balla Gaye boo ko Balla mu ngi lay dégg. <laughs> waay waxuma ko pour mu dégg ma sax mais dama wax dëgg sama yàlla rek tax. yàgg guy gi xel war naa mën a dem ci loolu. loolu loolu lu neex la. Malick Ndiago loolu loolu ci gars yi di xaar wala Malick la Malick. ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp la gars yi bëgg. ñëpp la gars yi bëgg. ñëpp ñu ngi lay jaajëfal bàyyi rek. jërëjëf jërëjëf doom day merci